Monsieur le maire, Madame euh, la présidente du conseil départemental, docteur Sakho, Madame la directrice li ma waxoon ci suba rek moom laay waxaat dañu bari ñu nekk euh, bokk Tiwaawoon nekk NMA mais man dama bokk Tiwaawoon wax naa ko xalifa bi léegi ma ne ko suñuy maam ca njaar la woon la ba léegi kon bu ma ñëwee Tiwaawoon dama ñëw sama dëkk élément nag li nit ñi xamul ñaana ko téye parce que ba ñuy def projet bi banque bu ñu dem dañu ragaloon tubaab yi ñu ne kan mënu leen ko financer mais yàlla def ba ma ñëwee sëñ Saliou mu ne ma daal loo ci yaakaar da ko ci am am ci loo ci yaakaaruloon woon ma jël avion dem màkk bi ma njëkk a gis xabru ba dañ ne loo fa ñaan mu am. ba ma ko ñaanee ba ma tourné ki mandaloon ma ne ko daal NMA tubaab yi financé dina am ñu bañ a financé dina am kon seen ñaan moo tax mu am li ma gën a kontaan ci geste bi nag sëñ bi loo ko wax mu ne hôpital bi ba njëkkee ñëw dañ ko ne sëñ bi daal dañ lay jox ambulance mu ne jox leen ko appelal Tivaouane buñ ñëwee ñu jox ko enveloppe mu ne ministre bi dama koy jox nañ ko def au nom loppitaal kon xam naa fi la hôpital bi toll hôpital nag Euh, dañ leen di gërëm di gërëm monsieur le ministre di gërëm aussi kim ran ba remplacé Eva Marie Coll parce que moo ñu yëkk a wax affaire ambulance ma ne ko mën nañ la may de mais nag ay non condition mu ne luy seen condition ma ne ko ñun ñooy choisir dëkk yu ñu ko yóbbu mu ne ma village sax bu ngeen ko bëggee ñu yóbbu ko sama frère Diop Sarr aussi ba mu ñëwee yàqu ci dara mu continuer ci la ko Eva Marie Coll bàyyi woon kon bu ñu ñëwee Tivaouane sëñ bi liñ lay ñaan mooy boo jullee ñaanal ñu NMA yokk parce que NMA bu yokkoo ñëpp dinañ ci xaj dañuy jéem rek li ñuy jéem nag jël nañ engagement tey dégg naa madame daal directrice li nga wax luñ ci man xam leen ne dinañ kontaan ci loolu parce que xam naa la xalif fi ko hôpital bi toll kon luñ ci man dinañ ko def même luñ ci mënul aussi dinañ seet suñu entreprise yi nga xam ne ñoom lañ àndal suñ collègue yi ñu pousse leen ñu def ci hôpital tiwaawan parce que alaaji Abdou loo ko dégg loo ko dégg loo loo ko tuddee hôpital bi day rëy parce que ki ñu ko tuddee moo rëy alaaji Abdou mooy suñ euh, maam mooy suñ lépp mooy suñ référence aussi comme euh, Azlim wax du référence ci Tivaouane du référence ci Sénégal mais référence la ci monde bi kon nag bu ñu ko tuddee hôpital hôpital bi mënut ta tuuti bi ma tourné ba dugg ci hôpital bi sama dama tii dama chauffeur ma ne ko mais yow man xamoon ne hôpital nii la toll dama mais finalement hôpital la. kon nag ñi ngi jël engagement engagement yi ñu jëloon mooy année bu nañuy jël ñaari ambulance maye ko parce que maye ko ci jàmm yàlla la bokk parce que kami transporté doo ko xam nit dina dem parce que damay toog dakaar ma ne kan ñun suñu jabar mënuñu bu ñuy accoucher ñu dem clinique àll bi ñuy dem keroog bi ma aminta ak aminta mbeng joxe ñu koy jox éleveurs yi dama ko ne ñoom bu ñu accoucher quelque fois seen bakkan dos fa parce que saret dañ leen di yóbbu parce que kenn gënul kenn ñu ñëpp a yem ñoo ñëwandoo ci kii ñooy demandoo donc sëñ bi daal li ñu lay ñaan mooy foo jullee ñaanal ñu ñaanal Sénégal parce que xam nañ sa ñaan fu mu toll ak fan la ñu mën a jëlee ak fan la mën a yóbbu wax ci du gudd nag loolu la amoon lu may wax wax ma si la aussi état bi lam man ma ngi koy def la res nag privé bi moo ko mën a def te privé bi aussi dinañ seet en tout cas élément moom dina seet wàllam dina seet lu mu mën ak lum mu ak lu mënul mu jéem ko pour accompagner leen maa ngi leen di jërëm yéen yëpp seen taxawaay ak seen service